yàlla bàyyi yeeg sa yaay bu xëy caam moom veji moo kële ki nga xamante ne bi mooy mami Cobra trois cent mille pañem ndogu boo xamante ne bi manqué wul dara ci fàttali mami rek saa nekk ci ay live donc way wi nga xamante ne bi veji way na ko te mu wër àdduna moom la mami Cobra tegaat saa su nekk saa buy live ba sénégalais yi xamee ko ci liyee waral moom veji mu demaat di njukkal ki nga xamante ne bi mooy mami Cobra aba no stress xëy na wax ci yaa awa mi nga xamante ne bi depuis ko gi commencé suñu ko ci émission ziar émission ziar tas Modou Sénégal moo koy def ak ku naan Adja Cécile Abba No Stress lam ci wax mooy lu tax duñu kaasuñu bopp lan moo tax ñun duñu kaasuñu bopp Abba No Stress ngay wax naan tax yaawa deful ziar war nañ koo xam war nañ koo segg ba pare settantal ko Abba No Stress ci ambiance am ak ay mbalagam ma ngay wax naan li wëtte wër mooy war nañoo dem gëstu ba ci biir lan moo kii di yaawa jëy deful ren ziar Adja Cécile mi koy def nag Abba ma ngi koy tagg ak di ko raggal gannaaw wax ci leneen loo xamante ni bi aw jëyale wu xew ci Ndakaaru mu di ab l'accident boo xamante ne bi mi ngi xewee fii ci Ndakaaru benn camion boo xamante ne bi daanaka la mu yaboon dafa surchargé camion ba moo saaraan ba mbëkk ay boutique daanaka nit ña dañoo faggat ci seen bopp tuutee tet kon nit ñàkk fa bakkanaam li léey Sankara Mbaye di snappeur bu mag boobu daf ca yam di ñu ko wan en direct Maam Ndiaye Savon ca Maroc ga nga xamante ni bi demoon na fa ngirub ziar Maam Ndiaye Savon ba mu jógee ca Maroc amal na ab ndogu royal ndogu royal boo xamante ni bi invité na ci ay xaritam invité ci ay am di jàmmam ñooy ay détracteur a ah. maam Ndiaye Savon nee na ci liggéey rek xam te itam liggéey rek laay def lépp lu ma am ci àdduna jàpp leen na liggéeyam a ko quartier général di émission bu mag bi nga xamante ne bi ma am fële ci TFM ñu ràññee ne bërki Dembo Ndiaye bi mu jeexee gis nañ fa ab complicité bu am diggante Bouba Ndour ak ay employé am Bouba Ndour ah, naka jekke ni ñu koy gisee ci complicité boo xamante ni bi saa bu émission jeexee moom itam ak di ree ak ay employé gis nañu ko muy kafanteeg ñoom waaye oustaz Modou Fall ci laay desandi ba ci quartier général ñuy jëlandoo ñetti kilifa yoo xamante ni ku ci nekk sa xam-xam rek géej la te yow képp nga daal di toog mën a développé ci mag ñu baax ba ñëpp kontaan waaye bu fekkee ne dañoo invité ndoo ñett ku ci nekk sa xam-xam du xaj benn émission te ku ci nekk itam la ngay bëgg a développé du xaj ci émission bi moom oustaz Modou Fall na mu gisee yëf yi rek mooy bu sañoon ñuy invité kenn par kenn bu ko defee boo ñëwee di nga mën a développé ba sa xol sedd itam ñi lay seetaan dinañu mën a concentré ndax itam ñoom itam ci ne sab xam géej la yow képp benn émission émission kon nag oustaz Modou Fall nee na bu sañoon du ñu invité ndoo ñett waaye nañu invité ndoo kenn par kenn ñu gis ko moom itam complicité ak oustaz Pape An ñuy kafakare ginnaaw ba émission ba jeexee TFM laay des ba léegi wax ci ki nga xamante ne bii mooy Mado di animatrice bu ne foofu Mado ngay wax ci digganteem ak Déguène Chimère nee na weeru koor jotee leen di fàttali rek ki nga xamante ne bii mooy seen yaay ji di Déguène Chimère Mado ma ngay nettali di def ay confidence yu daw yaram ci ki nga xamante ne bii mooy ndem si yàlla Déguène Chimère valeur yi nga xamante ne bii jëf na ko ci ñoom yu rafet yi nga xamante ni bi daan nañ ko ràññee ci moom déggeen ci meer saa yu weeru teroo rek sama xel déggeen ci meer lay dem Sidi Diop ak nam ko fi defe woon daaw ba yëngal réew mi doon wax naan après koor gi réew mi dina daanu ren nag daf ne après koor gi album dina génn album boo xamante ne bi mooy dàq album a pa dàq album a mooy le golden boy de la musique sénégalaise de di Sidi Diop annoncé ne ne après koor gi dina génne album bu mucc ci ayib kon nag ay fansam nañu ko xaar juste après koor mu daat leen di bégal ndax itam album yaa ngi boobaak tey mi ngi doon togg ab albumam te njort na ne bu ñu noppee koor gi rek dana ko yakkal fans yi keneen ku wax ci musique sénégalaise moo di Bass Thioung Bass Thioung nee na musique sénégalaise pour mu avancer foofu ñu bàyyi concurrence bi nga xamante ni bi dañu koo nekkee ñoom artistes yi nee na concurrence dafa war am ñun ak yeneen artistes yi nga xamante ni bi bu ñoo ñun réew waaye ñi nga xamante ni bi ci réew mi la ñu nekk nga nekk ci réew mi ma nekk ci réew mi ma di la soxore loolu jëmalewul musique sénégalaise kanam li wétawóor mooy nañu gën a concentré wu te gën a liggéey ngir ñu mën a yóbbu musique sénégalaise feneen Bass mooy wax ci musique sénégalaise Mandiaye Seck génn na def ab sortie Mandiaye mi nga xamante ne bi daanaka coow li ko fi toppoon digganteem ak waajuram wu jigéen coow li nga xamante ne bi toppoon na ko fi digganteem ak magam di Wally Ballago Seck taxoon Mandiaye Seck daal di raar dugg ci ab xam daal di lëlu boobaak léegi kenn dégg ko muy yàbbi ci Mandiaye Seck gis nañ ko mu génnaat ci ab interview boo xamante ne bi ma ngi cay wax naan coow li bare sama pap moo a jox sujaada jox ma satala ne ma jaamul yàlla te itam nekkal ci njub Mandiaye Seck ma ngay wax digganteem ak waajuram wu góor bi nga xamante ne bii mooy di Ousmane Seck complicité ba am ak fi mu nekk nii juboo ga nga xamante ne bii juboo nañ ko waaye itam Mandiaye Seck wax na ci ay projet yi nga xamante ne bii dëmal na ko ngir musique sénégalaise Aby Ndour a ngay gën di fësal bëgg gi nga xamante ne bii bëgg na ko Mia Guissé Aby Ndour ginnaaw bi nga xamante ne bii defoon na ko di wax digganteem ak Mia Guissé bëgg gëm ko bëggeeg na mu estimé xale bi Aby Ndour tey jii ma ngay gën a dëggal yooyu la kàddu ma ngi koy gën a dëggal ci ay jëf waaye itam ci ay waxam Aby Ndour ma ngay wax rek ne Mia Guissé xale bu ko neex la yooyu itam xale bu ma estimé la xale la boo xamante ne bi saa yu toogee bu nu ko laajee rek bu daal di gën di dëggal cofeel gi nga xamante ni bi am na ko dem na banaan sax dafa mel ni dama ko jural sama bopp Sa Thiès soxnaam di Khadija wax na ci digganteem ak Sa Thiès ginnaaw bi nga xamante ne bi Sa Thiès ci boppam moo njëkk a def ay témoignage wax ci soxnaam di Khadija nee na soxnaam ku baax la te itam ku ko muñal la waaye ko yërëm la bëggul lenn loo xamante ni bi metti na ko moom Sa Thiès Khadija itam génn na di def témoignage yu ne mel këram ji di Sa nee na Sa jëkkër gën gënu ko jëkkër la joo xamante ni bi yëgul succès xamul luy succès waaye tam baay faal la nit la koo xamante ni bi dëggoog dëggal jubal rek ci la nekk jëkkër la ju am yërmande jëkkër la joo xamante ni bi bi ma ko xamee ba léegi jooyatuma dara man Khadija wax ci Cheikh Ahmed Cissé mi nga xamante ni bi daje woon nag mag di jab émission ci 2STV débat ba tàngoon jër daanaka ku ci nekk daf doon défendre position ba nga xamante ni bi ja nga nekk mag di ma nga doon wax Cheikh Ahmed Cissé naan ko li wétte wóor mooy bu fekkee ni da ngay jàngale itam da vulgaire ndax ni koy dafa dafay yàq jeunesse bi te itam dafay pervertir jeunesse su sénégalaise dama bëgg nga gën a woddaat kàddu yi gën a rafetalaat kàddu yi loolu yi dina tax jeunesse bi jànge ci bu fekkee ne da nga ne jàngale moo la tax a jóg Cheikh Ahmed Cissé ma nga campé ci position ma naan ko lii may jàngale gis naa ne duma ci jóge tey te itam duma ci jóge ëllëg li wétte wóor mooy damay jàngale te itam stratège la wax si Adja Thiaré Diaw Adja Thiaré bi nga xamante ni bi amoon na fi problème moom ak Kalifone Sall Adja Thiaré moo xëy ne sénégalais yi ab lesbienne la te itam nekk gi nga xamante xamante ni bi nekk naa ko lees tax na ma am ay jafe-jafe yooyu jafe-jafe moo ma juraloon ba Kaliphone Sall di ma dóor tax na ñu di ma menacé tax na ñu di ma yàq lu ne man Adja Thiaré nag dama bëgg xamal àdduna yëpp na leen ab lesbienne laa te itam lesbienne gi nga xamante ni bi nekk naa ko bëgguma kenn di ma ci ŋaañi ndax itam sama choix de vie la ba ma waxee ba noppi dem na ci Instagram am daal di fa publier ab photo boo xamante ni bi daanaka dungu la def moom Adja Thiaré wax ci kooruk célébrité yi gis ku mel ni Marichou na muy wooree ko gis mu publier ay photo yoo xamante ne bi bi ma ngi ca muuru di ko sellal ci weeru ramadan yi daanaka artistes yi dañuy faral di ko sellal ba koor gi jeex Marichou Chéri Khadim seen gis nañ ko foto yi nga xamante ne bi foto yooyu le publier daanaka donte sax moom Marichou dafa mësoon di sell waaye yi photo gën naa yiw te itam gën a tinaa rafet wax ci keneen mu di aja Diallo Adja Diallo mi demoon ziare gi Cheikh Abdou Karim Mbacké ñu ngi ko gis moom itam ci anam wu yiw ci anam mu sell woo xamante ni bi mi ngi sukk ci ab sëriñam di ko jébbal ab ziara xamante ne bii xam nañ ko sëñ Abdou Karim Mbacke mi nga xamante ne bii ku ko xam xam ne itam taalibeb murit bu dëggu la keneen ku ñu gis ci muraay moo di faay dara faay dara mi nga xamante ne bii ci ab muraay la ñu ko xame woon bu njëkk waaye daanaka jamono doon na doon ba faay dara dindi muraay ba ci koor gi gis nañu faay dara ne defaat na muraay ba gën na ko selal moom influenceuse bi di faay dara ci ay photo yi nga xamante ne bii gis nañ ko mu publier ko ci ay comptam keneen ku koy sellal ci weeru koor gi moo ko muuru di ko sellal ci weeru koor yi moom itam photo yi nga xamante ne publier ne ko ci ay kontam ay foto yu yiiw a yiiw la jeexale kook mbir moo xamante ne bi tam mi ngi doon ab l'accident bu xew ci diwaanu Kaffrine benn camion moo fa dajeeg benn moto as ndaw ñàkk ci bakkanam ka ci ñàkk bakkanam mi ngi doon benn xale bu jigéen boo xamante ni bi ay atam mi ngi toll ci ñaar fukki at wax ci beneen musiba moo xamante ni bi xewoon na Kaolack ndangaan waaja ñu fa rayoon ka ka rayoon di magub galam mag ba yóbbu nañ ko ca gendarmerie ba mu ba ñu koy déglu la mu wax ci enquêteurs yi moo di mbir mi nga xamante ni bi def naa ko daal rey faru sama rakk maa ngi koy rëccu te itam bu bu doon tey duma ko def li waral ma def ko moo di ak firange rek ndax xale bi damaa am ci moom cofeel te itam dama ko bëgg te dañu ko duppe sama yaay ma yàgg koo tere xale bu góor bi li lee waral rek firange gu ëpp moo waral ma fekk xale bu góor bi taxaw ma dëbb ko paaka mu dee